nekk nag loo xam ne daanaka ku ko dundul tamit am na ñu ko dund muy góor ñi sësuwaate ci béréb yi wala sax ci oto yi wala sax ci marché yi moom soxna si di ci gën a indi ab leeral di xam ne lenn li feebar la sax ak mbon war nañuy yërëm jigéen ñi. ñaalu rek dara rafetu ci dara ndax fii dëkkub sëñ Bàmba la ku fi munta nekk liggéey jaamu yàlla dimbali borom dëkk bi defoo fi dara waaye da ngay dugg ci tata duggandoog nit mu jël kanamam sës la. boo dee nitu ker sax da ngay mujj sax dangay ngay taxaw wàcc te sa heure wàcc du jot wala nga yor paset ñu fas ko yéenee nangu da ngay wàcc làmbatu doo gis dara bu dee montor bu baaxee nga takk ko da ngay ëlbatiku doo gis dara ñun ñuy jaay fii dong léeg-léeg benn samba boo defiy jaar ni siiwa du gis génn góor gum la ragale mbaa leen gis-gisam boobu wuteeg loolu gis-gis bi nga xam se ne soxna si moom la am si joxoñ baaraam tuuma ci lenn ci jigéen ñi ci sol yi ñuy sol baat moom li si bari moom ci jigéen ñi lay doon ndax da si gis xale jigéen jigéen joo xam ne daal na muy def boppam wala na muy liggéeyee boppam daal rafetu jigéen jigéen dafa war a càmm cëram càmm boppam ba fu mu génn daal góor du ko xool ba di ko xemmeem ba di ko susuwaate ndax jigéen dana mel noo xamante ne nii dugg ci tata wala mu mel noo xamante ne nii taxawaay ci milieu góor mën na kaa gis xemmeem ko ba def ko lu mu ko bëgg doon kon nag suma ma sañoon ñun jigéen ñi daal ñu gën a góorgóorluwaat defaraat suñu colin sàmmonte daal ak suñ suñ cër daal sàmmonte ak suñu bopp jot ndax jigéen moom muur awraam moom moo moo moom moo baaxoo ci moom jigéen day sol lu jot ñaw lu jot sol lu lu gaat taxut a jongama taxut a rafet taxuti tamit ñu bëgg la mbaa la bëgg kon moo yow ñoo yem jikko waaye sol col gu gu baax gu silwiise boo munta koloo tam nga sol sa col gu baax goo xam ne si fumb la fu la nit fekk rek doo jekkalaat sa toogaay. ñeneen ñi di gën a firndeel ci gis gi ñu gis ci yenn ci góor ñu koy def tey gën a ñaan dimbal ñu gën leen cee dimbali ndax sonn nañ xanaa bëgguñu ci dimbal dañ ko fiy gis fii ñuy toog dañ ko fiy gis dañ koy gis ci tataay yi da ngay dégg léeg-léeg nit wax ko waaye mënuñu ci dara ñun ku ñu ci dimbali daal lañ bëgg waaye mënuñu ci dara fii ñu toog rek da gis nit sëgg di jënd ci yow am ku ko ferasu soo lambee kanama moo nga mel noo xam ne doo xam ne mu doon te nit ko bon doo nga ko def am na waa joo xam ne fii lay taxaw ci suñu kanam waxuma la fii waaye fii rek lay bañ a gis bu gisee fii du dootu dem taru dangaa jekkalaat say yére yaa ko centré mu leer la ne yow kii yaa ko taxat loolu nga bàyyi ko xol defaraat say yére waaye si sinon loolu fa nga taxaw di jaay du fa jóg ba keroo ngay jekkalaat say yére te loolu dong moo bàyyi ak lu ma di xew tamit ñuy gën a ñaax jigéen ñi ci yenn ci sol yi ñuy sol